Eh, jaa ngeen jëf mbokk yi ànd ak Touba Argentine TV ñu ngi leen di gërëm bu baax di wéy di rafetlu ànd bi ak ñun tey nag ñu ngi fii ci São Paulo Brésil yaakaar naa sénégalais yi mil nañu ko. miin ngeen itam Touba Argentine TV di ñëw di fi amal ay jataay tey nag ñu ngi dal la ko xam ni ku màgg la ku am solo ci communauté sénégalais bi nga xam ne ñoo nekk moo ne nekk fii ci Brésil muy Samba jàkk xam ngeen ni lu mat ñetti weer ci ginnaaw moom la fal. président association sénégalais bi nga xam ni moo nekk fii lu ko jiitu itam ràññee ngeen ab liggéey mu nekkoon vice président waaye itam am solo lool ci ñi nga xam mooy consul bi fii di jàppale ki nga xam ne moom moo di Babacar kooku tey la ñu war a dalal waxtaan ak moom ci ay ponk yoo xam ni dana bari solo lool ñeel doomu sénégalais yi nekk fii kon léegi-léegi incha allah ñu daal di dalal suñu gan. Touba Argentine TV mi ngi lay nuyu. sëñ Gora euh, jërëjëf. maa ngi lay fay nuyoo di la nuyu aussi. jaajëf du doy rek nu tudd ni yow yaa jiital changement bi ñu xam la bu fekkoon tey yaa ngi ñuy yaatalal yow yaay kan Samba jàkk sa début senegal sa àlluway njàng ak lan nga doon yëngu ba ni nga ñëwee fi Brésil. waaw euh, depuis vingt cinq ans. Mhm. maa ngi fi au Brésil euh, may ñëw Brésil bon moom doon jàng bi ma paree sama jàng bi woon sama société foofu Sénégal di liggéey mhm. dem ba mu yàgg ma commencé voyage yi mhm. waaw di di di tukki mhm. euh, di dem ak di ñëw fii ci Brésil ak yeneen dëkk yu bari ba xëy daal di installé installé Brésil installé Brésil mm. sa yëngu ci lan lu romb association bi nga xam ne tey moom lañ la gën a miin yow yaa jiite. waaw man euh, sama liggéey. Mhm. liñ koy wax fii impresario la. Mhm. mooy koo xam ne dafa yor société. Mhm. société bi nag dafa yëngatu ci affaire importation exportation. waaye nag man. Euh, de fonction antiquaire la. Euh, loolu daal mooy yëngu bi gën a fës ci yëngu yi may yëngu mm-hmm. euh, euh, di euh, commercialiser mm-hmm. ay objet d'art mm-hmm. waaw comme comme ok ñu lay gërëm bu ñëwee ci tey li nga xam ni moom la moo ñu gën a yëkkati sax muy association bi nga xam ni jël nga ko ci lu mat ñetti weer bu fekkoon tey yaa ngi ñuy présenté boobu lan mooy jubóom lan mooy jubluwaayam ak lan mooy taxawaayam tey ci biir communauté sénégalais yi lan. situation bi biñ ko jëlee léegi. Mhm. Euh, ça fait à peu près quatre ans. Mhm. Euh, ki ko yoroon mooy le président Babacar. Mhm. actuellement euh, moom mooy consul bi. ci fan yi yàggul dara assemblée général bi biñ ko defee keroog. bi ñuy dem sax assemblée général euh, dañu demoon wax dëgg yàlla ndax maa doon vice président bi pour teg suñuy ndombay tànk jël association bi teg ko ci loxo xale yi mais vraiment bi ñu demee ni situation bi demee ak situation dëkk bi ni mu demee xale yëpp daal mànkoo ñu ni grand daal mënaguñ laa yeewi bu ñu sañoon vraiment nga jëlaatal ñu association bi ba ci kanam waaw loolu daal moo tax euh, ñu nekkaat ci ba ba léegi ba léegi. kon ñu la déggee daal ñeenti at ci ginnaaw nga nekkoon vice président bi ndappoon ci Babacar bi ngeen ñëwee itam pour renouveler ngeen joxawaat seen ay lenge Sénégal yi ñoom ñoo la taamuwaat loolu di tekki ni dafa am nekkin bu am solo boo xam ne moom ngeen fi nekkee woon. waaw association bi euh, jëlee nañ ko ci benn niveau. yóbbu ko ci beneen niveau boo xam ne niveau bu am solo la. Mhm. niveau bu am solo la ndax tey euh, association sénégalaise bu São Paulo. Mhm. lënkaloo na lënkaloo bu wér. Mhm. Euh, ak préfecture bu São Paulo. waaw ci ay liggéey yu am solo. yu ñu yu ñu seq ak ñoom. tey association São Paulo. lënkaloo na it lënkaloo bu wér euh, ak ministère de la justice mhm. bu Brésil mhm. tey association São euh, lënkaloo na lënkaloo bu wér mhm. euh, ak yeneen organes gouvernementaux yu mel ni police fédérale yu mel ni DPO DPO, c'est l'association des, des, des, avocats. Mm-hmm. Euh, ak ak yeneen euh, organ yu bari yoo xam ne tey. xam ne ngi ci réew mi waaw waaw ñi ngi ci réew mi. Mm-hmm. di di di ay ay ay jumtukaay yu am solo. Mm-hmm. yoo xam ne tey dañoo duggante duggante bu wér ak. association sénégalais yi mënuñoo dem sans ñoom daal. yu demee sénégalais yi mënuñoo dem sans ñoom. ok waaw tey. émigré yu bëri tey. Mm-hmm. bëggoon nañ lonkaloog ñooñu di jàppalanteeg ñoom. Mm-hmm. te tey yàlla def na sénégalais yi. sénégalais ñoom ñoo am chance boobu. ok tey bu ñu doon def bilaa ci ñeenti at yi mm-hmm. ba sax teg ñetti weer yi nga xam ne yow yaa fii nekk. def naa ci moment boobu sax ci la association bi ëppee njariñ ndax ci ñeenti at yooyu fii la fi ay sénégalais dugg li muy migré yi bari fii ci nga xam ni moom moo di São Paulo ci Brésil. mel ni kon foofu dafay laaj ñu taxawu leen bu baax a baax a baax tey boo ñu doon defal bilaa. ci lan ngeen def. waaw li tax ñu gën a euh, dugg ci association bi. Mm-hmm. moment yooyu dafa nekkoon euh, ay moment yu difficile. Mm-hmm. waaw parce que dafa am lu ñu naan flux migratoire. Mm-hmm. waaw muy moment bi nga xam ni euh, ci la sénégalais yi juboo ci Brésil bàbbeekondoo ñëwandoo ñoom ñëpp. waaw muy moment yu yu yu yu difficile. Euh, pour euh, recevoir leen. Mm-hmm. Euh, pour négocier ak autorité gouvernementale yi ñu fi fekk. Mm-hmm. problème yi bari. Mm-hmm. comprendre que il fallait association bu dëgër. pour mën a dékku. problème yooyu yëpp mën a gérer sénégal yi. naka ngeen ko seere ak ci lan ngeen jàppale lan ngeen def. waaw. dugganteeg autorité yi. Mhm. négocier ak ñoom. Mhm. fexe suñuy autorité dëkk. Mhm. di fi ñëw. Euh, parce que euh, gouvernement euh, état dafa bëri doole. Ah, li ñu njëkk a def mooy fexe. suñu suñu suñu ay autorité di fi ñëw. di fi ñëw ok foofu sax lañ doon jëm. yàggul. Mm-hmm. mën naa ko tuddee ni ñoom dañu wuy si yuuxu. Mm-hmm. ci moment boo xam ni tey sénégalais yi kenn ku nekk def nga say vidéo jumtukaay bu ñu lay déggee def nga ko ngir ñu daal wàllu si Brésil. yéen it def naa def ngeen ci jéego yu am solo. Mm-hmm. ba keroog bi nga xam ne moom la fi Sori Kébé ñëw nekk directeur Sénégal de l'extérieur dafa wax ni daf fi ñëw indi message yu. président waaye itam déglu leen mu mel ni loolu itam lu am solo la foofu it ñàkkul ni bi mu wanee ginnaaw am na jeexit boo xam ne tey am na loolu mën ci dellu si waa loolu góor a moo tax manaan naan état dafa bëri doole. Mm-hmm. yuuxu boobu ngay wax c'était un cri de cœur bu sénégalais yi def. Mm-hmm. dans des moments difficiles. Mm-hmm. waaw ñuy ñuy ñuy boom di faat sénégalais yu bari. sénégalais yu yuuxoondoo keroog lan lañu def en tant que association. boobu man en tant que. vice-président de l'association euh, président Babacar en tant que président dañoo toog waxtaan waaw euh, ma ne ko président mu ni ma ah président ah, situation bi doy na waar léegi qu'est-ce qu'on waaw li ñu mënoon def euh, ñu woo suñu ambassadeur mm-hmm. waxtaan ak moom xamal ko situation bi fi nekk interpeller mm-hmm. euh, le directeur des Sénégalais de l'extérieur mm-hmm. muy Sori Kaba mm-hmm. bi ñu waxtaanee ak moom ah mais Sori il faut il faut l'écrire xamal ko li fi nekk on a écrit bi ne wax ak moom expliquer euh, boobu mu ngi ko fekk ci li mu ñu wax mu nekk en mission waroon jóge Paris nekk en mission war a dem Canada. Mhm. mais bi mu jotee suñu message. Mhm. dafa annulé ay voyage pour daal di dëpp. pour Brésil mhm. keroog bi ñuy dem di ko jëli à l' man ak yow ñoo ànd. waaw keroog on l'a reçu à l' à l' aéroport vers deux du matin. sénégalais yëpp toog di xaar. ci hôtel bi. bi ñu ñëwee on s'est réunis. jusqu'à cinq heures du matin. pour lan. pour solutionner problème yi. solutionné problème waaw moo tax ma ne la état dafa bëri doole. bu ñëwee. Euh, on a rencontré dajeeg nañu ak euh, autorité yu bari. Mm-hmm. ci gouvernement Brésil. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom. Mm-hmm. crime yi bu jeexul it wàññeeku na bu baax. macha allah yàlla bu mu fi amati sax déggatuñ ko. fekkit booba mission passeport dafi daan gëj trop. mission passeport dafa daan gëj sénégalais yi amuñu woon këyit. waaw mhm. ah, fekk euh, sénégalais yi aussi euh, jëloon ma euh, comme conseiller municipal à l'immigration ci mairie bu São Paulo. ci mairie bu São Paulo. Mhm. waaw ma amoon fa benn projet bu am importance. Mhm. boo xam ni maa ngi ko tuddee woon. Euh, régularisation migratoire yi. Mhm. waaw daf ñu cee jàppale bu baax. Mhm. waaw keroog bi ñu toogee ak yi autorité brésiliennes yi. Mhm. Euh, waxtaan ba juboo euh, ci la régularisation boobu pour may sénégalais yépp këy tàmbale. ci la commencé ci la tàmbale. kon waaw mu dox ci yéen. mu dox ci. Euh, ay jéego yu am solo. waaw keroog nee na ma Samba. gouvernement Brésil de nee nañ ma bu ma demee naa bind. te mu ma bindee dinañu may Sénégalais yëpp këyit. te bu ma yeggee rek dinaa ko def. na ngeen fexe ba bu ma ko defee ba pare. na ngeen ànd ak seen ambassadeur bi yéen association bi. ngeen xeex pour ñu régulariser Sénégalais yi. Mm-hmm. ba mu demee vingt jours après. Mm-hmm. def na ko ñu ànd ak ambassadeur di xeex di xeex di xeex ba ñu xëy loi bi génn ñu may sénégalais yëpp kayit. Mm-hmm. waaw looloo tax ma naan la état dafa bëri doole. bëri doole waaw ay sénégalais fu ñu nekk. dañoo war dajaloo ci ay association dañoo war a dajaloo ci ay ah, daayira àndandoo nekk benn doon benn say lu ñu soxla dañ koy am ñu lay gërëm xam naa foofu daañu ci desandi bari woon na ay digge yoo xam ni itam digg na ko Sénégalais yi lu jëm ci mbiru logement yi ak it ñu ubbi projet ñu daal di leen ci jàppale. loolu itam dañuy bëgg a xam jeexit yi xam naa bu ñu koy xamee ñàkkul ni dañ leen jege waaye gis Gora Seck boo xam ne mën naa am projet am xam fu muy jaar wala mu soxla ci wàllu logement yi ñàkkul ni tey am na ay sénégalais yoo xam ne tey ñëw nañu fii ba seen dossier sori na wala itam am na lu jot loolu ndax mën nañ leen cee am ak leerlu tuuti. waaw les projets de de de cent mille logements. Euh, yoon bi mooy sénégalais yi dem vers les associations euh, daal di formé wu. Euh, ut seen ay këyit yu leer. bu ñu laajee ñu jox leen. Uh-huh. mais nag il faut ñu ñu wut ay këyit yu leer. Uh-huh. mais projet wu logement yi yeneen dëkk yëpp a ciy am. noonu ñu ciy amee sénégalais yi mën nañ ci amee noonu. waaw du du du lu difficile te mi ngi fi tey boo duggee ci situ ambassade du Brésil bi nekk fii. à Brasilia. Euh, détaillé nañ ko ci. nan nga mën a def ba ba ba am ci ci logement yi. Mhm. Ah, c'est pas c'est pas difficile. lu jëm ci financement yu jigéen yi ci lu yàggul sax gis nañu benn vidéo seex moo ko dugal kuy. def appel ngir ngir ki nga xam ne moom moo fi nekk bees mu fexe ba jigéen ñu Brésil yi jot seen wàll ci financement yi nga xam ne dafay jógee ci bu senegal waaw yooyu yëpp mm-hmm, mm-hmm. yooyu yëpp association bi euh, ànd na. Mm-hmm. ak consulat honoraire senegal bi fi nekk. ñi ngi ciy waxtaan ñi ngi ciy waxtaan ak euh, ambassadeur bi. Euh, xool. waxuma sax São Paulo euh, euh, yi nekk São la noonu non non sénégalais yi nekk ci Brésil gépp mhm. opportunité yooyu nga xam ni am na fépp nan la ñuy dem nan la ñuy fexee ba mu am fii aussi. ba fii. Mhm. ok ñu gërëm la mbir yi gën nañu gën nañu jege maanaam li ma jubla wax mooy tey li fi doon ay jafe-jafe lu ci ëpp mi ngi ruus ginnaaw bi nga xamee ni sax mënees na ko tudd muy consul honoraire boo xam ne am na fii lu bari lu daan sonal Sénégal bi gën ko jege. sensé euh, nañu it ki nga xam ne moom moo fi nekkoon di euh, ambassade bi foofu itam daañu fi euh, taxawlu lool ki nga xam ne moo fi nekkoon di coréen am na ku ko fi wutu tey relation bi ngeen amoon yéen ak moom ak ki nga xam ni itam moom fekk moo fi nekk ban relation ngeen am ak consul honoraire bees bi nga xam ne tey moo nekk fii sa nga nekk ci biir. waaw ñun suñu relation ak suñuy autorité relation naxante kese la ñun. Mhm. toujours dañ koy wax xale yi. ñun seen ay mag lañ euh, li ñu bëgg rek mooy jàppale leen. Mm-hmm. waaw ñun jàmm la ñu bëgg dañuy naxante rek ba xale yi am li ñu war a am. Mm-hmm. dañuy naxante ba xale yi nekk ci jàmm. Mm-hmm. waaw ñun loolu mooy suñu devise. ambassadeur bi fi njëkkoon a nekk dañ daan naxanteek moom rek. lum ñu mën a defal defal ñu ko lum ñu mënul defal ñu defal ko suñu bopp. Mhm. ki fi nekk it noonu lañu fas yéene loxo ak moom. am ngeen fas yéene. mais daal amagu leen benn jotaay yu toog waxtaan. Euh, bon. xanaa ci ay correspondance mhm. bi ñu euh, changé bureau association bi bind nañ ko bataaxal xamal nañ ko ni association bi bureau bi changé na. Mhm. tontu nañuy rafetlu ko. Mhm. waaw mais boobu ba léegi daal amaatuñu benn contact ak moom. contact mhm. physique nii non non mhm. kon mbaalu li ñenn ñu di wax ni moom ki fi nekkoon sax moo ko tane toogagul gisaguñ ko liggéeyagul fii parce que toogu fi mbaalu loolu lay dëgg. waaw moom mi ngi soog a yegg si. man daal bon ñun daal mënaguñu wax dara parce que koo xam ne mi ngi soog a yegg si daal mënaguñ xam nu mu mel. mais yéen a ngi seen daal dina nekk koo xam ne mooy gën ci ñun daal. waa loolu la ñuy ñaan yàlla. mu nekk koo xam ni moo gën ci ñun mu nekk koo xam ni moo gën ci sénégalais yi. yàlla ah, ndax ñun moom man Samba Diak moom man moom. Euh, mhm. loolu laay wax toujours. waaw mhm. ah, xale yi samay rakk lañ. Mhm. samay jarbaat lañ samay doom lañ. Euh, excellence Babacar bi fi nekk tamit. la même chose. bët boobu lay xoole xale yi. ok kon ku mhm. nekk ak moom ñoom ci jàmm rek ñu nekk ak yow. ci jàmm ci jàmm. waaw ñun loolu rek la ñu bëgg. yàlla na jàmm jëm kanam. ñu gërëm la daañu taxawlu nag bu baax ci li nga jiite muy association bi ndax solo si moom moo gën a jege sénégalais yi ci bi ngeen ko falee léegi tudd nga ko ñetti weer ci la toll ci maman wu xat-xat la bu ñu tuddee xat-xat mooy ci maman yoo xam ne nit ñi ngi dëgmal été décembre ñii di dem Amérique mhm. euh, seen programme ak tey seen bureau fu ngeen ci tollook fan ngeen jëm lu ngeen bëgg a def. waaw. ñi ngi soog a commencé ñi ngi soog a installé bureau bi. Mm-hmm. Euh, bi ñu faloog léegi ça fait trois mois yàggagul. Mm-hmm. te dafa nekk ci moment wu décembre boo xam ne São Paulo euh, xale yi ay commerçant lañ. Mm-hmm. ñii ña ca été ba euh, ñii voyage nañ bon dëkk bi daal stable agul. li ñu bëgg nag mooy décembre bi passé na janvier mi février peut-être après carnaval bi. Mhm. ñu daal di woowaat sénégalais yëpp euh, defar bureau bi. Mhm. taxawal commission yi. quatre mhm. euh, de membre yi pare nañu. ah waaw ñu commencé ko. ku bëgg a bokk ci association bi déjà. mën nga commencé wut sa carte de membre. Mhm. Euh, laa nag liggéey bi commencé. ok waaw teg suñu benn programme bu dëgër. Mhm. Euh, ba pare nag daal dox. daal si jëm. foofu loolu lancé sénégalais yi ci ñu xam ni association lu am solo la defe naa li ñu waxtaanee rek wane na ci bi nga xamee ni fii jafe woon na ngeen daal di def seen moyen bind état état daal di njëkk ñëw waxtaan ak kilifa yu fii ba tey lu bari ra tax tey important bi nga xam ne association am na ko lan ngay wax sénégalais yi pour que tey ñu dagg ci carte membre yi ñëw it jege association yi. waaw association moom bu njëkk umpale woon nañ ci lu bari. Mm-hmm. Euh, mais tey. man je pense que xale yi comprendre nañ lan mooy association. Mm-hmm. waaw association du dara lu dul la nga xam ni moo lënkale rek sénégalais yi. Mm-hmm. waaw ñun fii sampawlo association neex na fee yor. Mm-hmm. ndax organisation bi dafa njëkk ci daayira yi. waaw am nañ fi euh, daayira am Amda. Euh, am nañ fi daayira Sopp Nabi. Mm-hmm. am nañ fi daayira ñaseen yi mm-hmm. ñu nekk organisation yu dëgër yoo xam ni euh, association day ñëw rek coiffé leen mm-hmm. te ñun ñëpp benn lañ ah, bennoo boobu fi am moo tax euh, jiite fi association mettiwul waaw ah, ndax euh, buñ la nangulee rek du metti vraiment daal ñi ngi ñi ngi ñi sant yàlla te xale yi euh, comprendre nañ te bëgg nañ te nangu nañ mhm. ok ci moment bi ñu toll itam daañu sàkkuwaat ngeen ak seen laxasaay toll na ci ñaari at nga xamee ne ñu bari may nañ leen kayit ak léegi ci moment bi la ñu war a delluwaat police fédérale pour daal di koy changer ñenn ñi danañ bëgg mu nekk temps bu yàgg wala itam ñu daal leen renouveler seen kayit loolu itam ñàkkul ni da ngeen am liggéey boo xam ne da ngeen ko ci def ngir loolu ratax liggéey boobu la ñu war a njëkk a tàmbali euh, déjà fi ak semaine prochaine. Mm-hmm. képp koo xam ni sa këyit jeex na te nga bëgg ko renouveler. Mm-hmm. bureau association bi ubbeeku ma dina am personne personnel bu qualifié bu fi nekk boo xam ni képp ku bëgg renouveler sa këyit mën nga ñëw. Mm-hmm. dinañ la taxaw dinañ la directionner. ah dinañ la jàppale ba nga renouveler waat say këyit ci jàmm ak ci jàmm ak salaam. ci jàmm ok ñu gërëm la daanu ñëw it si loo xam ni euh, ci ay at yu bari ñu ci ñu koy koy dund li mu doomu Sénégal yu bari kenn fi àdduna ginnaaw boo jaalee seen ay mbokk loolu itam ci yan taxawaay ngeen ci dolli pour demee lu ni mel ba fi xewatee rek ñu daal di leen mën na taxaw ñu dell ci jàmm ak salaam fële Sénégal. waaw góor loolu moom. Mhm. ci ci la waroon sax njëkkee. vraiment maa ngi jaale communauté sénégalaise bi yëpp. Euh, ci suñu jarbaat yi fi bàyyeekoo ku mel ni mbay puy yàggul. Mhm. Euh, ku mel ni euh, Pape mi bàyyeekoo fële ca Équateur. koy mhm. jaale sénégalais yëpp. Mhm. ñi ngi masawu aussi bu baax a baax suñu yaay euh, grand maman. Mm-hmm. ci doomam ji fi bàyyi ko bu yàggul baytiir mm-hmm. kooku suñu suñu suñu suñu suñu rakk la suñu suñu jarbaat la mm-hmm. ñu ngi ko ci masawu bu baax a baax euh, xale yi nag euh, ñi ngi jéem ndax ñi fi njëkk a bàyyeekoo ñëpp yóbbu nañ leen. Mhm. te ba léegi it ku fi bàyyeekoo ñu ngi lay yóbbu. Mhm. yaakaar aussi nous sommes nekk nañ ci ay moment yoo xam ne ay moment yu yu yu difficile la. waaw mhm. ah, mais ba léegi ñi ngi jéem euh, ndax dañ ni képp koo xam ni bàyyiku na fi. Euh, mu doon assassinat. kooku état moo koy jël en charge. waaw fii nag daayira yi organiser wu nañ organisation boo xam ne du ñu xaar état. Mm-hmm. Euh, dañuy dajale suñuy dërëm dërëm dugg ci daayira yi dugg ci association yi xam nga dugg ci groupe yi kenn ku ci nekk génnee li nga am. Mm-hmm. ñu yóbbu bu ñu paree daal di jël facture proformant bi envoyé ko à l'ambassade. Mm-hmm. Euh, bu fekkee que ni assassinat la euh, ñoom ñu ñu remboursé waaw mm-hmm. bu fekkee que ni assassinat la mais bu fekkee que ni nag moor naturel la. Mm-hmm. toujours loolu moom euh, état bi daf ci daan joxe participation rek. waaw mm-hmm. ah, benn participation bu ndaw rek bu bu bu bu muy jël jaalee ko. mbokk yi nga xam ni ñoom la seen doom walla seen jarbaat wàññeeku. ñu lay gërëm xam naa suñu waxtaan lu jeex moo ko ci tudd passeport yi ay jafe-jafe la fi woon yàggoon ñu bari itam ko woon ko ab commission ñëwoon na nag booba léegi liggéey nañ ko waaye xaar gi daal mi ngi bëgg a yàgg xam naa léegi rek maa ngi wax ak mbokk mu ne ma loolu moom na na njëkk say question foofu kañ la passeport yi ñëw waaw waaw passeport yi moom mi ngi ci yoon bi mhm. euh, parce que maa ngi woon Dakar fan yee passé rek dem naa ba euh, bureau passeport. Mhm. waxtaan na ak euh, policiers yi nga xam ni. Mm-hmm. ñoom ñoo fi ñëwoon defaral ñu passeport. Mm-hmm. waa jox nañu nag ay solution yoo xam ni. Mm-hmm. buñ ko defee ñun suñu ay passeport dinañ ci jot. Euh, ndax euh, passeport yi kale Sénégal. moom dafa bari du Brésil rek. parce que bi ma demee Sénégal sénégalais nekk Canada. même problème bi am la ñu am. ñeen nekk Afrique du Sud. Mm-hmm. même problème bi ñu am la am. la ñu am waaw jox nañu daal ay solution yoo xam ni. Mm-hmm. Euh, je pense que bu ñu ko defee peut-être fii bala muy mat weer daal ñun dinañ jot suñuy passeport incha allah. te dangeen def te te ñu ngi ci quoi incha allah. allah mm-hmm. ñu gërëm la muy lu xew. jël say bagage daal di wuti fële ci Amérique. bu yàggee sax mbaa mbedd yi du du wéet ak ay sénégalais loolu itam yaakaar naa ñàkkul ni da ci am jàngat. waaw loolu moom phénomène la phénomène bu bu bees la euh, parce que euh, Brésil moom ñun yàgg nañ fi. Mhm. Euh, def nañ fi léegi vingt cinq ans. Mhm. dëkku inflation la. Mhm. ñi fi yàgg xam nañ lan mooy inflation. dëkk la boo xam ne day toog ay ay ay at yoo xam ne day neex lool. toogaat ay at yoo xam ni. xam day xaw a doy waar. waaw ah, xaw a doy mhm. en tant que ku fi yàgg. Mhm. Euh, tey ñi nga xam ne tëkkaguñ seen ay saag jóg. Mhm. Brésil dama gis nii dëkk la boo xam ni bu beeku la dëkku nataange la dëkk la boo xam ni bu am lu bari la suñu réew ma manqué. tey Sénégal yi nan lañ fi mën a dëgëre toog fi ñi nga xam ni tey ay liggéeykat lañ yor tuuti. te defe naa am na ñoo xam ne sax ñu ngi def ay. collaborer seen tuuti di yóbbu ay ay ay conteneur foofu tam yaakaar naa itam bëgg naa ngeen gën a ubbi bopp sénégalais ci loolu ba ñu xam ne loolu mën na nekk fukki nit juróomi nit yoo xam ne yor nañ seen i tuuti ci ban yoon lañ mën a jaar ba tey jënd café wala jënd suukar yu mel noonu dafa am solo ba bu fekkee ni askan bi xam nañ yoon yi ni jaar ba ba ba ba di ci ba di ko def dana wàññi tey yu mel nii muy takkaatu saak jëm ci beneen réew. waaw dëkk Brésil moom. Mm-hmm. Euh, dëkk bu mag la. Mm-hmm. Brésil dëkk bu mag la dimension wu continent la te fii lépp fi am. Mm-hmm. Euh, fii moom ku yàkkamtiwul. Mm-hmm. Euh, boo toogee installé wu mën nga fi gis sa bopp. waaw mm-hmm. ah, gaawul nag. te dëkku commerce la. dëkku jënd ak jaay la ndax dëkk boo xam ni dañ naan am na deux cinquante ou deux cent soixante millions d' habitants. waaw mm-hmm. euh, loolu dëkk la bu am pouvoir d' achat bu élevé. Mm-hmm. tey ñu man ñu ñeme di fi investir comme ça àll bi yaatu na. waaw àll bi yaatu na. tey bu ñett boole woon dem ah, fenn wut fa seen seen comme mbay la xam ñu bay foofu. c'est ça c'est mm-hmm. wala sàmm gi yeneen yeneen nationalité yi. noonu la ñuy def euh, dañuy booloo investir. mais sénégalais nag moom. <laughs> moom ci benn roxam rek lay bëgg xam nga. mais ah, nag loolu am na solo nag. waaw waaw ñi ngi ñi ngi changé si nag. Mhm. ndànk-ndànk. Mhm. ñi ngi si ndànk-ndànk parce que ñun fii ci consulat bi ci association bi tamit loolu lañ fi nekkee. Mhm. mën nañu xëy gisoo ba ngoon suñu ay rakk ñëw fi ñuy toog di waxtaan ak ñoom. di leen jox ay idée di waxtaan ak ñoom. di di leen yedd di leen di leen di leen di leen defal ay projet waaw yooyu yëpp aussi euh, lu am solo la. parce que dëkk doo ñëw rek xam mais ku la fa njëkk. moo waaw waaw mm-hmm. bu la bu la bu la bu la nangoo wax. Mm-hmm. te bu la waxee nga dégg. Mm-hmm. yàlla mën na la dimbali. ok phénomène bi ak euh, gouvernement bu réew mi ndax ñoom yëgagu nañ ci dara surtout lu demee ni sax ci wàllu kayit yaakaar naa fi ne tey bu ma ko doon xaaj benn xaaj ma naa wax dem na États-Unis Amérique te dañuy yóbbaale kayitu réew mi loolu mbaa du ci doon dara. waaw mais kayit moom. Euh, bu dee kayitu. trois mois deux ans nga am. Mhm. boo defee trois mois ci àll bi mën na indi problème ci say këyit. Mhm. bu dee këyitu dix ans nga am boo génnee def deux ans ci àll bi mën na indi problème ci say këyit. Mhm. waaw loolu daal mais këyit moom. waaw bu ñu la ko mayee aussi. Euh, c'est pour nga résider ci dëkk bi. mais boo génnee. toog yàgg bëggoo ci dëkk bi loolu mën na ci indi ay problème waaye nag gëw mën koo yàq. mën na ci indi ay problème mën na ci indi problème ñu gërëm la xam naa ay coono dana nu yóbbe ba li ñu amoon ci ay laaj li ñu bëggoon wax lépp duñ ko wax ñaari fan ñu ngi ci voyage xam naa dañ lay bàyyi rek yu bari yoo xam ni itam bëgg nga ko wax ci dugg na ci bu waaw xanaa di woowaat sénégalais yi rek ñoo ñëpp ci bennoo mhm. àndandoo ñun ñëpp doon benn jàppalante jege daayira yi mm-hmm. jege association yi bañ a wéet daal mm-hmm. waaw parce foofu ngay amee information lépp mm-hmm. waaw foofu ngay gisee yoon yi waaw nañu moytu wéet bi euh, te te di nekk ak mbooloo yi loolu daal lay dénk xale yépp waaw nañuy ñëw ci daayira yi di dem ci association yi di ñëw ci consulat yi ok ñu lay gërëm kàddu yu mujj xanaa di leen sant yéen waa euh, Touba Argentine TV. Mm-hmm. ak Touba Brésil TV euh, Touba Brésil TV moom. Mm-hmm. miin nañ ci seen écran yi. Mm-hmm. ak Cheikh. ak euh, Cheikh Modou Bamba. vraiment di leen sant bu baax parce que liggéey bi ngeen di def liggéey bu am solo la. parce que da ngeen di wane lu bari loo xam ni. dafa nëbbatu woon. Mm-hmm. ngeen wane ko ba nit ñi gis ko jariñu ci. Mm-hmm. waaw dañ leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla. waaleykum salaam wa gërëm ko yow itam ñu lay bu baax yan bi waaye yële nga am ci Sénégal yi nga def ko am nañu mbégte bu baax dalal la ak yi ñu fi jëlee ci kàddu lépp nekk njëriñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaajëf te. Eh, jaa jëf yaakaar naa li ñu leen digoon gis ngeen ko. kooku moo doon Samba jàkk wax na ay ponk yoo xam ni itam yu bari njariñ la yaakaar naa itam bu ñu ko déggee lépp lépp ay njariñ la kon yàlla nañu yàlla may dégg ak topp ñu daal di koy gërëm da ñaanal ko nag yan bi nga xam ni moom la yanu muy jiite sénégalais yi nekk fii ci São Paulo yàlla na ko yàlla wayefal ba naal yi mu am yéene ji mu am ngir sénégalais yi nekk fii nekk ci bonne condition yàlla na ko ci yàlla jàppale ba mu def ko ñu gërëm it équipe bi nga xam ni ñoom la ñu àndaloon muy euh, waa Touba Brésil TV xam ngeen ni saa bu ñu fi ñëwee ñoom dañu daal di jël seen matériel yi am yëpp ànd ak ñun ci tournoi yi nga xam ne ñoom la ñuy def Cheikh ak Bamba Der ak mboolem équipe bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu